au Sénégal pour la première fois. Nous sommes le Salon international des mines. Nous sommes comme l'UNESCO Santa Ané qui monde bien. Nous sommes des gens qui ont commencé à faire des choses. Nous avons invité les euh, géologues pour que nous l'écolons avec l'UNESCO. Nous sommes au Wartan qui lancement de la journée. Cette journée, nous avons fait des choses

lo xamné amna lo xamné loo mën nañ ko euh wané né li suñu patrimoine la ñoko mom dañ ko wara euh, conserver dañ ko wara protéger ëlëk tamit dañ ko wara valoriser c'est-à-dire war nañ ci def lo xamné day am ngëneel pour population yi day am ngëneel pour tourisme bi ñuy def day am ngëneel aussi pour suñu culture même aussi day am ngëneel par rapport ak suñu ndaw yi nga xamné ñu ngi leen di tàggat ci yenn matière scientifique yi dañuy soxla di def ay sorties pédagogiques yu ñuy wax di dem ci bërëb yooyu di gis loo xam ne ñu ngi leen koy jàngal mais daanaka peut-être mosuñu ci teg bët wala mosuñu ko joxoñ ci loxo donc géoparc yooyu doon na euh, bànqaas bu am solo boo xam ne moom la ministère bi bëgg fësal moo tax ñu ne journée bi nañ ko organiser jéem a seet naka la ñuy lëkkaloo ak waa UNESCO ak yeneen partenaires yi fi nekk ba nga xam ne bii nga xam ne moom lañ ci njëkk a jublu muy euh, bërëb bii na xam ne moo nekk fu ñuy wax dinde felo euh, muy doon bërëb boo xam ne wax dëgg yàlla bu kéemaan la yàlla may ñu ci ay euh, bànqaas yu am solo. waaw ñun def nañu Cap Town dina am ñuy jóge ay dëkk yu bëri nga xam ne loolu rek mooy tax ñu dem ci dëkk ba pour visiter yooyu culture bi tamit dina tax tamit waa dëkk ba mën a wane lépp loo xam ne am nañ ko comme culture. dana tax tamit xëyu ndaw yi tamit foofu mën na yokku parce que loo xam ne la tamit day jur koom-koom du doon loo xam ne rek dañuy taxaw di ko seetaan mais day am ay installation dana am ay dëkkuwaay dina am ay auberge dana am fu ñuy lekkee ak yeneen ak yeneen ba nga xam ne day jur koom-koom boo xam ne bu am solo boo xam ne communauté bi dina ci mën a gis boppam et dina tax tamit suñu élèves yi suñu étudiants yi di jàng ci xam-xamu science beeg yooyu dinañu mën a def ay sorties foofu di mën a gën a faram-fàcce lii na xam ne jàngal nañ leen ko ci kay yi ak ci livre yi par rapport ak lii na xam ne moom la ñu gis ci euh, réalité bi